Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer askan wi dëkk fii ci Touba Bagdad sonn nan lool ngir jafe-jafe yu metti yu ñuy jànkoonteel ci ñàkkum ndox ak mbedd yu lëndëm këriis dëkk bi daal lëndëm kërëj suñ gone yi mënuñoo génn suñ jigéen ñi mënuñoo génn ndox nii amunum ndox amunu dara suñ jigéen ñi daw nañoo dawa daw bay bëgg dee suñ gone yi durootuñ sax nit manque ndox mi moom Touba Diop la waaye ñun Baxdaad moom ñoo ca rawate ndox bi sànq fi ñëw nii nit ñi ñëw di duy ndox nii ca tërëyër da gis jigéen ñi yoonu seen paan di du di ndox. sonn nan nun waa Baxdaad sonn nan xale yi gis nga oto ndox bi bu yegsee ni nit xale yu ndaw yi góor ñi ak jigéen ñi ñëpp daw nan ba sonn nan ñoom nag ñoo ngi woo ak di tàllal loxo bépp autorité bu leen mën a dimbale ci jafe-jafe yu tar yi ñuy dund rawatina ci jamonoy tabaski gi ñu dëgmal Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer